asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci Seex Amadul Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg Mbakke te wér ñëw ca rakkam ju sell ja ku tedd ka kay Seex Moustapha tey di sëñ Amadul Maxtaar ak njabootu Seex Moustapha yëpp ñëw ca taawam ba ah sëñ Seex Bambaali moom sëñ Mbakke Madina ñëw ca doomam jëng xenim tey maa ngi kër sëriñ Seex Gaynde Fatma lislaam jëmul sëriñ Seex senegal yëbul sëriñ Seex ku mu jur yar na la ah sëñ Abdourahmane mi Seex Gaynde Fatma tey ak nag taawam bi doomam سرين مصرا مكه محمد خمني ني دايره فيدراسيون بي اك دايره ولايه نك سرين مصرا موم شيخ غيند فاطمه موكو جيتي تي با سن شيخ دي كري دايره بوبا كين خلاتول دايره كو ديف دايره ورا جوخ سن شيخ مكه غيند فاطمه دروا دوتور بان بيس لا بيسم خادم الرسول ديكو شيخ مصطفى مارالي اك رسول الله رسول الله ديكو تيرو منكو تودي bis boobu la ñuy màggal fii ci Daaru Xuddoos bis boobu nag ku fanaan ci pàkk bi boo xëyee tàggoo nga ak bàkkaar boobu bis ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëb ñaar fukki fan la woon ci weeru tamxarit bii nu nekk fii ci Daaru Xuddoos sëñ bi ni béywuñu kenn bay wu béywuñu fenn njaboot gi ak soppe yi kan mooy Sëriñ Tuubaa mooy ki liggéeyal yàlla lu ko kenn deful waaye bàyyi na ko mat li baax li baax baax dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du rab du raaf na waaye bàyyi na fekk ku baax mooy kan mooy Cheikh moo jële raay ko Tuubaa jële sëñ ko Touba yàkkali ko ba ku ne xaj ci titre foncier Touba ba ku ne am foo dëkk kooku mooy Cheikh Moustapha ku wutu ginnaawam ba yoon wi nosoo nii Cheikh Moustapha rek la wuuf njaboot gi wuuf rakkam yi kenn jooyu kon bis baa ngoog boo nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn ku ñëw Cheikh Moustapha fat la te ku mu fat doo fa naan bis ne ñëpp ñëw dégluwaat discours ba mu waxoon ginnaaw Serigne Touba ba tey te loolu rek la waxtaane bu kenn manqué